kon hmm. <coughs> biraam yaa ngi yor di dugg de xanaa da ngay mooy sama xeer yi yaag baaram ay biddanti ngeen de dégg kon hmm. ah, sa xol boobule hmm. da nga kaa war laabal ba mu set wit ci comme ni ngay laabalee jàkk ji ba du am benn takk-takk xol bi noonu nga war a góor góorgóorlu def yitte ba lépp loo xam ne ay salte salte sa diggante ak sa borom mun dañ noonu la su ko defee nga mën a jot ci yëf yi mos ci yëf yi li taayifiin ñeel ñi nga xam ne ñooy wër néeg ba waaye li taayifiin ñeel may yàlla yi nga xam ne mooy rot ci sa xol bi di xam-xam yeeg yeneen yi ci ajo yëpp xeeti may yi daal ci gàtt wala aakifin ak ñi nga xam ne Euh, ñooy rob xamu ñoo sax ci dëkk ba mm. tabaarakallaa pour mun leen a jëriñ mm. warukaay mm. ak ñi nga xam ne ñooy rukon ak sujjóot yi ñooy woy sujjóot tabaarakallaahu ñëpp mën caa jëriñ fàttalikul yént yàlla ibrahim nag ma ngay ñaan pour kaaba gi ak dëkk ba ne fàttalikul isqaala ba waxee ibrahima yént yàlla ibrahim rabbi yow sama boroom defal haada dëkk bii baladan mm-hmm. ndi lu ko liif laam mm-hmm. te ba mu koy ñaan fële mm-hmm. da indi doon liif ak laam seetlu nga ko fële dafa am liif laam fii amul liif ak laam waaw fee mu maarifaal ko fii mu nakkiraal waaw loolu rek la booba xam nañ néeg bi ak gannaaw ba ñu xamee néeg bi ba pare rek la loolu indi différence amidan mu nekk néeg boo xam ne aji am sécurité la ku fi dugg mucc warzuq yàlla na nga wërsëgal mm-hmm. ahlahu mm-hmm. waa dëkk bi mm-hmm. wala doo ci dem doo yàlla na nga wërsëgal ahlahu waa dëkk ba mina samaraati ci ay xeeti meññent ndax dëkk la boo xam ne dafa tuñe àllab kerte ndeng la ndox amu fa dara amu fa ibrahima ngay moytuwaat de man amana minhum ma ngay moytu laa yanaalu ahdi alzalimin waaye yàlla moom la Seykul Haaj Maay Si radiyallaahu anhu doon wax mm. bu fekkoon ku aw sant la mm. ñu ne njiw day sant mm. dégg nga ko bu baax ma ngay moytu ñu ko fële waaye gis nga borom bi moom nekkul ku ñuy ku ñuy tabarkal <laughs> man amana billah wal yawmil aaxir ak koo xam ne gëm na bis bu mujj ba xaala yàlla ne ko wa dinaa wërsëgal de man kafara itam de ku weddi moom gëmuloo ma daa añ daa reer mhm. daa ndékki daa am kër daa moto mhm. daa nangam daa nangam yii nit ñi am yëpp daan ko am mhm. fa umattiuhu ko xéewal ci àdduna xalilan diiru lu muy dund rek nag su dund ba jeexee rek jeex na summa adtaruhu topp ma lorloo ko ci aljanna ci alaaxira du aljanna wa bi sa bon na ila azabi naar jëmee ko ci mbugalam sawara nga xam ne amul benn mucc waay wa bi sa bon na almasiru mucc waay boobu yént yàlla ibrahim su borom nag nag tabaxal kaaba gi waaw yëkkatil fondement bi ndax malaayka yi ñoo ko njëkk a tabax fondé woon ko ci jamonoy aadam muy laalam ko waaye dafa ne woon bu fondement bi réer ci jamonoy tuubaal kon ñi ko njëkk a tabax fukk lañu malaayka yi nañ ko yént yàlla aadama yént yàlla siis yént yàlla ibrahim xamaali xuuna yi xusay xurays jurhum abdullahi ibnu zubayr xajjaaj ibnu yusuf tabax xajjaaj bi nag nee ñu moo fa nekk ba léegi fukk ñii ñoo mën a tabax kaaba bi dégg ko baax a baax wa hada jurhum baytullahi rasitina boobu la si daan mel di junj ko léegi nag fàttalikul il yarfau bay yëkkati ibrahim yéen fi yàlla ibrahim alqawaida fondement ya miir ba minal bayti wa ismaila ak ismail ma koy jàppale di doomam ña nga naan rabbana yow sunu boroom taqabbal yàlla na nga nangul min naa si ñun ci sànc yi ñuy taxaw taxawal ci sa néeg bii yàlla nag ñu ko nangul yàlla yàlla kese innaka naka yow sunu boroom mm. ant yow laa wax mm. as-sami mm. yaay aji dégg ji waaye al-alim yaay aji xam ji ña nga naan rabbana yow sunu boroom yow la ñuy wax wajaal naa yàlla nag ñu def boole ñu muslimay ni ñuy ñaar ñay way wammatu laka ñeel la ci say atte ñun daal loo ñu sant yàlla nag ñu may kàttan lu ñu defee la sant wa min zurriyatina mm. ak lenn ci suñu njaboot gis nga mu mm. dawal miin mi mm. bañ ñëpp duggaat comme min mi tamit it la du dugal lépp dawal ne ah ak ñenn ci suñu njaboot ndax buñ ne ak suñu njaboot rek te defaloo ñenn ñi yàlla mën laa keppaat comme nam la keppee woon fële mu ne wa min zurriyatina ak lenn ci suñu njaboot nga def leen ummatan ay mbooloo yoo xam ne muslimatan way wommatu lañu laka ñeel la nga xam ne amul lenn lu ñuy diingat ci seen diggante seen borom lépp moo rafet Mm-hmm. waari naa yàlla nag ñu xamal mm-hmm. manaasika naa mm-hmm. suñ ay jaamookaay suñ sariyaa nu ñuy ajee màkka nu ñuy jullee nu ñuy wooree nu ñuy jëflantee yàlla nag ñu ko xamal wa tub yàlla na nga nangu tuub alay naa ci ñun yàlla nag ñu nangul tuub innaka naka yow sunu boroom laa wax ala ah, ah, ah. attawaab yaay nanguwaa koon tuub bi arrahiim yaay yërëmaa koon ñu naan rabbanaa yow sunu boroom mm. wabaas mm. yal na nga yónnee mm. fiihim ci màkka yal na fi def rasulan ñaan nga yàlla nangu na ko ci sayyidina muhammad dégg nga ko rasul boo xam ne minhum ci waa dëkk bi lay bàyyi ko mm-hmm. yeneen fu bàyyi ko ay maam yëpp foofu la ñu am mm-hmm. yi rasul boo xam ne mm-hmm. yatlu dafa jàng alayhim ca niti màkka ña adduna bi yëpp aayaati ka sa alquran ji mm-hmm. sa cére bi mm-hmm. wa yuallimuhum mm-hmm. mu leen di jàngal alkitaaba alquran mu leen koy jàngal walla xikma ak njariñ yi alquran làmboo ak ta kenn ko ne nga xam foo teg waaye bu jàngalee te tarbiya amul doxul waxoon nañ la ko léegi tarbiya mooy lépp lu tax mag ñi daan jël seen doom yi hmm. di ko yóbbu ci daara hmm. ñi ci bëree bëri hmm. soxluñ ci woon jàng kese kese kese dañu bëggoon ñu defal ko tarbiya waaw kay am jikko yu ñu def ci moom mu xàmmee kan mooy boroomam xàmmee kan mooy ab yenentaam xàmmee kan mooy sëriñam xàmmee kan mooy ndeyam kan mooy baayam kenn ku ne lay sa ay droit ñu jox la ko ba ma sëkk te kenn ku ne doo wàññil kenn leen wa yuzakkihim mu leen di sellal kon ndeke nit mën naa am xam-xam ba pare te du sell mooy du am tarbiya mën na nekk fóore fa daaral mm. te du yëg dara mm. waaw kaay foog mm. nag ñu taskiyee ko ndax jikko yu sew yi nekk ci moom mën dañ loolu la ñu doyee sëriñ bis bu set mi nettali la Abu Yazid al-Bastami moo fuqahaa boobu nga xam ne bëri woon na xam-xam lool waaye fuqahaa bi dafa yëg ne xam nga faqih bi dafa yëg ne am na lu manqué le mooy yëg ne daal ak rëy mi ci moom yëg ne daal rëy moo ko gàllankoor ba li mu bëgg am ci digganteem ak boroomam amu ko ba mu ñëwee ci Abu Yazid al-Bastami wax ko ko daf ne ko waaw loolu yomb naa saafara mooy da ngay bàyyi ba suba dix heures et demi ñëpp nekk ci marché bi nga jënd saako clémenté def yaramu neen doo sol dara jaar ci digg dëkk bi koorom bu jox ko benn te oustaz ba mu doon wax loola ci misaal oustaz bu doon am bës la daan toj réseaux sociaux yi ci misaal xam nga ne loolu ku ko defal woon fi yéen ustaas yooyu ah mooy loolu ku ko njëkk a gis de da nga ko dara surtout ustaas dafa doon dañ gaa liggéey xam naa ne bés bi mu am kay gars yi daañu ko wàcc fii xam naa ne cat mënu ña mënu ko ñàkk a dugg waaye dafa dem rek ñëw rek sëriñ bi da nga jeex na rëy moo nekkoon ci yow dindi naa ko si fini kon sëriñ bi nga xam ne dafa mën a àggale ci yàlla day xam taalibe yi kan moo lenn kan woon lii sa jàngo tax mu mën la jàllale waaye kii bu rëy nekkee ci moom kii ñaan nekk ci moom kii nekk ci moom mm-hmm. ah mooy loolu de foog nga xàmmee yooyu mm-hmm. way zakkihim mm-hmm. innaka naka yow yàlla anta yow laa al aziz yaay aji not sa nguur waaye alxakim yaay aji teg mbir fa mu yelloo suñu borom ne wa man yarxabu ana kan mooy bañ kan mooy sib am millati ibrahim ci diinay maam ibrahima ji ba bàyyi ko walla nga ne du sit xam nga raxiba comme ba baara bu jël gëtee ànd noonu du sit mukk mooy du bañ mukk am millati ibrahim illa man lu koo xam ne safiha dafa manqué manqué nafsahu bakkanam mooy dafa réer rek dafa xamul fu muy taxaw rek ndax yénti yàlla ibrahima moom euh, euh, euh, hmm. dégg nga illa man safiha lu nu koo xam ne def dese na nafsahu wala qad istafaynaahu tànn nañ yent yàlla ibrahim fi duniyaa ci àdduna bii noo ko tànnal suñu bopp dégg nga ko baax a baax te wa innahu mooy ba nga ko tànnalee suñu bopp itam ñoo ko nowe lii mu doon te wa innahu nag moom góor gi ibrahim fil aaxirati ci bis bu mujj ba la mina saalihiin mm. bokk na ci way yiw mm. bokk na ci borom garaat yu mag yi mm. dégg nga fàttalikul isqaala ba waxee lahu ñeel góor gi ibrahim ne ko euh, ah rabbuhu ayca aslim wammatul mooy jébbalul sellalal sa digganteeg sa borom xaala mu ne aslamtu naa sama lépp lépp lépp li rabbil alamin sama xalaat ak sama jëf sama loxo sama lépp daal jébbal naa ko fa rafdu siwa fardun alayna li annana bi millati mahwi shirki benn waykat wax <laughs> nee na ñun daal lu dul yàlla rek teg nañ ko fële te loolu nag faratale ci ñun lu yàlla ñu teg ko ne de mm. faratale ci ñun mm. ndax ñi ngi nekkoon mm. ci yoon woo xam ne dañu nekk ci yoon woo xam ne dafay supprimer lu ñu sikki sàkka ak lépp loo xam ne ak bokkaale yàlla la moo tax lu yàlla rek li def yel bandig ne loolu nag jébbal sa bopp lépp sa borom lépp moo la mën mooy loolu wa wassaa dénk moom góor gi Ibrahim Ibrahim bihaa ci yoon wow mu jaaroon ba sunu borom gërëm ko ci ngërëm lu rëy lu rafet lii dénk na ko baniihi ay doomam dégg nga ko baax wa Yaaqub ak yénti yàlla Yaaqub li nga xam ne Isxaaka moo ko jur moom it góor gi Isxaaka dénkoon na ko ko comme na ko ko maam Ibrahima dénkee ba muy bëgg a faatu dajale njaboot gi nee na xam naa ne wala fii da dañoo wax ne ku sori bi ngay xëyee mm-hmm. jege ji fa ngay fanaan mm-hmm. ba ci yàgg ne ma fee fekk mm-hmm. wala yaa naa ba sonn waaye xam naa ni ma gisee sori naa ndax bëri neexatul nopp yi neexatul ba ñuy wadd na tànk yi mooy loolu su ma jug ñëpp ciy jàpp kii xam nga ne kon jaadu na ma wax ak yéen mu ne yaa bane yéen samay doom inna allaha naka sama borom daal astafaaki tànnal na leen lakum ñeen leen addiina yàlla moo leen tànnal seen diine maam ibrahima ji leen mm, mm, mm. falaa tamutunna bu leen faatu mukk mukk mukk illaa wa antum dun yéen muslimuna ngeen di way wommatu mooy dëggal diine ji ma nekkoon am kuntum yàlla wàcc di laaj nda am kuntum wala ndax da ngeen a nekk suhadaa di way teewe il xadara ba teewale almawtu sababi dee ba mu teewalee yaa ndax booba yéen da ngeen kaa fekk yéen ñu dund ak Seydina Muhammad déedéet fekkee wuñu ko jamono ba muy wax li ba ñeel ay doomam naan leen waaw yéen maa taabudu ana lan ngeen di jaamu min baadi gannaaw suma ma wàcc liggéey suma ma fi lan ngeen di doxal xaalu njaboot ga ne ko ah dugub juñ bayoon daaw de dugub juñ lekk ren de daaw lañ ko bayoon wala day baara dégg nga wala boobu lan laa wax ah ngay nax sa li ma bëri xel comme li gars yi moo nangu loolu de ay gis dugub ji lekk ren daaw lañ ko lañ ko bayoon li ma la bëgg a wax mooy am na leen seen yare yaree woon tarbiyee leen ci tawxiid ak nangul yàlla bañ màgg ba xam ko wax dëgg yàlla suñu demee ba léegi nag mu ne na ko lu ngeen di jaamu soo bu jigéen la ñu jàngaloon daaw la nga ñu xamaloon at yële mm-hmm. loolu rek laa la bëgg a wax ma jaare ko ci wolof ko waaye comme yow moom li gars yi wax kursi naa la ko sonn waaye doo tegee ci raay mm-hmm. mm-hmm. naa bul gaa ñu jaamu ilaahaka yàlla sa wa ilaaha abaayik ak yàlla say baay ibrahim ak isxaaq ak ismail yénti yàlla ismail ilaahan yàlla la waahidan bay benn ndax xanaa beneen yoon ñu jox ko biran ba xam lu dégg moom tabaa xam na ko wanaa nun nag muslimuuna way wammatu lañu lahu ñeel ko way wammatul lañ yàlla bi maanaam suñu borom ne tilka kàddu yii ma fi doon nettali léegi ci diggante yént yàlla yaaqoob ba ba ci ibrahima ak ak i doom ummatun lañu mbooloo lañu moo xam ne xad xalat mm. wéy nañu mm. paase nañu mm. ak lañ doon jëf lahaa mm-hmm. ñeel na mbooloo mooma mm-hmm. maa kasabat lépp loo xam ne mm-hmm. jëfoon na ko walakum am ngeen itam maa kasabtum yéen ñii ma jàkkaarloo li ngeen jëf rek ñàkk réerul borom kenn ko rek la jëf waaye toog lonkalante tànk doo jëm benn effort ci sa mbiru diine lu ñu wax nga liggéey góor gi ñëpp xaj na ci a ah liggéey góor gi kay amul morom yow nag doo jéemee fexe ba am moroom hmm. waaye yow daal pour ñoo xam ne la foog nga tudd góor gi hmm. kon dafa góor dara hmm. te góor gi de pourtant su ko di ko wut woon ci baayam pour ñu xam ko ndax dafa ba ñu xam ko yow bi wax mu doon ñafe ba ñu xam la yow te yàlla ma ko fi daal joxe mi ngi fi lam fi daan mayee mi ngi ñoom lañ daan def ba àgg foofu mi ngi fi te mooy sellal du dox sa digganteeg loola soo ko defee rek am ci yëf yi noonu rek la laa maa kasabat walakum maa kasabtum te nag wala tusaluna dee su leen laaj yéen ñii ma jàkkaar lool amma kaanu ci la nga xam ne nekkoon na ñoom maam yi yaamaluna ah maam yi lañ fi nekkee woon ñun suñu yoon nekku ci yàlla dañu ko laaj loola ñoom la concerné woon ñoom lañ koy laaj wa qaalu wax nanu ñoom yahud yi ne nekk leen huudan di ay yahud aw nasaara wala ngeen nekk ay nasraan su ngeen koy fay tax te de nee nañ ko bëgg a jub daal mel na gën gën jekk mm. mooy ñëwal ci diine yahud mbaa nga nekk diine yi nasaraan rek mm. waxuñ dëgg mm. xul leen balaa topp leen ñun daal daañu topp millata ibrahim diiney maa ibrahima ja xanifa mbir moom muy aj jeng bàyyi diine caaxaan yépp jëm ci diiney dëgg wa maa kaana nekkutoon moom góor gi ibrahim bokkutoon ñil musriki nag ci bokkaalekat yàlla yi hmm. ñi jàpp ne góor gi Ibrahima seen maam la hmm. di kaas dana seen bopp tey bokkaale yàlla hmm. déedéet yàlla ne déedéet bokkul foofu ulu wax leen yéen yahudi wax leen ne wax leen jullit ñi leen aman naa gëm nañu bi ci ibrahim ak isxaqa ak ismail ak yaqub la ñu ci ñoom daal wax leen ne gëm nañ ko gëmin wu rafet dégg nga de mm. dégg nga mm. aywa lote ah mm-hmm. wal asbaat ak sët yi mm-hmm. wa maa ak la nga xam ne wàcceefoon na ko ci yent yàlla Moussa mm. ak yent yàlla Isa ak la nga xam ne wàcceefoon na ko annabiyuuna yonent yi min rabbihim la nga xam ne wàcceef na ko ci yonent yépp mu bàyyi ko ci seen boroom te mooy téere yi waaw boobu nag dafa def waaw kay gis nga ba mu ba pare mu mu tabarakal ndax ñee di yént yàlla ismaïl ak isaaka ak ñoom ibrahima dugg nañ ci nabi yu di te gis nga ba ñëwee comme li ma la waxoon démb rek ah mbooloo mi ñoo ñoo ngi nuyu sëñ baara di nuyu eh, alaaji biraan ah, sax doo matal ñoo ngi nuyu mbooloo mi yëpp ah ñoom duggaat nañ ci biir mbooloo mi di seet nga loolu ma loolu rek la jëfandikoo fii laa nu farriqu du ñu séparé bayna ahadin diggante kenn minhum ci yenent yi gëm yenent bi bàyyi bi ñun jullit ñemewuñ ko te wax naa ne mun nag muslimuna way wammatul lañu lahu ñeel yàlla nangul ko ba jeex tàkk nag fa in amanu ndegem gëm nañu bi misli ma amantu comme li nga xam ne yéen gëm ngeen ko bii ci loola faqad ihtadaw gindiku nañu waaye waaye ñu tawallaw suñu dumóoyu nag ñoom yahud ak nasaraan bañ a gëm li ngeen gëm ah bu baa fa ma hum xamal ne ñoom fii shikaakin ñu ngi ci juyoo pour mën a dëppoog yéen lu leen menacé nag ci alal doole arme dara jëlal yàlla teg ci seen kanam fa sa yag fii ka dana la fegal allahu yàlla hum bandi yooyu di lay menacé ak dugg ci lu ne woo moom yàlla as-sami' mooy aji dégg la gaa yi wax waaye al-alim mooy aji xam dil yeeg kàmb yeeg yépp suñu borom mooy ko ci xam eh, xam nga nasaraan yi dañ daan def batise xam nga batise dañ koy wax xaw ma loolu boo ko gisee ko ne juddoo dégg ba tollu fenn fii dañ koy yóbbu ca seen jàngu ba walla seen barab ya ne kii xol bi am na nu mu mel mm-hmm. nañ ko cuub comme yére mm-hmm. boo bëggee couleur bi changé da nga koy cuub bi mm-hmm. comme xol bi am na lu ci ne léegi nag am na xeetu ñam wuñ lay jox ak ndox muñ lay wicc su la joxee ci ñam bi nga lekk ko jël ndox mi wicc saara nasraayel nasraar pire ngi nii loolu lañ lay wax di wane ne yow léegi moom bokk nga ci diine ji bokk nga ci yëf yi ba jàpp ne ku bokk ci mbooloo ma te defoo loola mm-hmm. bokkoo ci dara mm-hmm. suñu borom ak di jàngale ne mm-hmm. yàlla moo dàq loolu moo ko gën mën ndax moom xol bi li ci nekk mën na kaa cuub sensé li ci nekkoon weddi yàlla gi mu def ci ngëm yàlla gu set wecc loolu mooy cuub ga rek ci gàttal xam yàlla gi mooy cuub ga rek ci gàttal kom cuub ni muy sensé yére rek ah wa man ahsanu kenn gënul rafetle minallaahi ci yàlla sibqatan ci cuubin Mm-hmm. da wax bu baax mm-hmm. nam lay suubee mm-hmm. nga sensé ci pas-pas ci lépp naka suñu borom mënee defee ko ko kenn mënu ko defee noonu mooy ngëm yàlla gi muy dugal ci sa xol ba nga nangul yàlla sañu na too kaa bañal dara wana nun nag aabidun way jaamu lañu yàlla waaw duñ ci rax dara xul ne leen atu xaaju na naa ndax da ngeen di dàggasante ak ñun fillaahi ah ci yàlla tànnal gim ñu tànnal ab yonent mu nekk ci arab yi ah loolu ngeen di werante ñu waxu moom yàlla de rabbuna wa rabbukum mooy seen boroom du suñu boroom kon nag mooy seet ku ko neex ci jaam bi mu tànn ci la ka neex ak fam ka neex ak nam ka neexee ñun nag wa nax nun nag ah ah ah ñeel nañu amal naa suñu jëf mooy jëf ji ñuy jëf genn du leen ko fay mm-hmm. ñun leen koy fay mm-hmm. wala kum yéen itam ñeel na leen mm-hmm. amaalukum seen jëf yi ngeen di jëf kenn duñu ko fay wanaax nun nag muxlisuun waaye sellal lañu lahu ñeel borom bi atakulu wala yéen yahut ak nasaraan da ngeen di wax naan inna ibrahim naka yent yàlla ibrahim ak isha ismail ak ishaqa ak yaqub ak sadiya da ngeen di wax naan ñoom daal kaanu nekkoon nañu huudan aw nasaara ay yahut ak nasaraan lañu yéen wax lool mm-hmm. fu ngeen ko teg mm-hmm. xul mm-hmm. a antum ndax yéen ñii wax loolu aalamu yéen ay aja xam amillah ndax yéen yéen a gën a xam wala yàlla yàlla ndax yàlla moo ne maa kaane ibrahima yahudin wala nasraaniya kon kay ci ñi bokkul ci ñi te yéen wax ci yéen la bokk te moom diine yahud gannaaw yént yàlla ibrahima la xew diine nasaraan gannaaw yént yàlla ibrahima la xew kon kay bokkul ci yéen xëy na nag ab sëtam ca ngeen jaare moo tax ngeen di legg-leggal foofa mm-hmm. te moo yënt yàlla yàqu mu ñu la waxoon dém wa man azlam kenn gënul mën a tooñ kenn dàqutu tooñ mm-hmm. mim man ci koo xam ne katama dafa nëbbu nit ñi shahaadatin ab seede indahu bopp nekk na fa moom min allaahi bàyyi koo ci yàlla mm-hmm. melakaani sayyidina muhammad yi jàngoon ci tawraat jàng ko ci injil sunu borom daal nee ne képp ku koy nëbbu yow kenn gën dàqulaa tooñ waaye nag bàyyil xel al ibratu bi umumi lafsi laa bi xul seede foofu daf ko tënk foofu waaye nag ëpp na noonu seede daal boo war a seede waxal ca kaw hmm. wamallaahu déet yàlla hmm. bi gaafilin hmm. mu nekk ku yëgadi amma taamaluun ci li ngeen di jëfandikoo li ngeen di nekkee di ko def rëccul dara yàlla de yàlla xam ne lépp de def leen daan tilka mbooloo moomu wala kàddu yooyu mbooloo moomu ummatun mbooloo la moo xam ne xada xalat paase na moom mbooloo moomu lahaa ñeel na ko maa kasabat lépp loo xam ne jëfoon na ko mm-hmm. wala kum ñeel na leen mm-hmm. maa kasabtum lépp lu ngeen jëf mm-hmm. lépp lu ngeen fàgg du naana wala tusalu déefu leen laaj am maa kaanu la nga xam ne mag ñi nekkoon nañu yaamaluuna di ko jëfandikoo ma ngoog xam nga sànq wax naa la fii baara xay mm. <laughs> mm. dégg nga xam nga wax naa la fii de yonent bi saa salaam ba muy gàddaay mm-hmm. avant muy gàddaay si daan julli te mm-hmm. kaaba ga daan jublu mm-hmm. ba mu gàddaayee suñu borom naka léegi nag del jublu baytul maqdis yaa nga ko baax ndax yàlla moom noonu la la benn nit yàlla wax rek nee na bu ma amoon ñeent fukki at yoo xam ne yàlla daf maa saxal ci benn mbir ma nekk ca mbir ma mbir ma du mu mës a waaye itam mm. su ma yóbboo toxal ma ci beneen mbir mm. bu bokkut ak meneen moo xam ne neexuma mm. du ma ko ci mës mooy daal lu yàlla def rek yàlla dogal ci moom ak na ko dogalee ci moom rek wa kullu ma qadrahul xadiru rek nar daa bihi fa zalika jadiru loolu alaaj abdi waxoon lépp lu yàlla dogal daal yàlla na ci ñun kontaan ci ak bëkke rek ak nunu li ma la gisee nii. Mm-hmm. li ma ci bëgg a li ma ci bëgg a wax sax naa ko bàyyi naa bàyyi mu sedd yow naa jënd glace <laughs> kon moom moo moom léegi ba mu amee ñëwaat fa ñëwaat euh, jublu fee. Mm-hmm. baytul maqdis mm-hmm. ci fukki weer ak juróom-ñaar. delluwaat màkka. mu ne nag boo delluwaatee jublu fële. ñoom nag daañu am kàddu yu ñu ci toftal. kàddu yooya nag. yooyu la bëgg borom bëgg a leeral tuuti loo teg sa yaquul dana waxe de ca kanam ñu dese ñi ñu manqué ñi ñu wayadi ñi mais naa si ci yahud yi naan daañu laaj de naa maam moom moom maa wallaahu ana lan moo tourné yonent bi ak ñii mu àndoon ak an qiblatihi waa fii la daan jublu ba mu yàgg bàyyi ko fi nekk ko fi yel bandi mm-hmm. di jublu fele mm-hmm. lu xew mm-hmm. mbaar waa ji dafa làmbatuyee allati penku ba nga xam ne kaanu nekkoon nañu alayha daal jublu ca penk booba xam nga lii de wane ne yonent bi yonent la ndax ñoom jàngoon nañ li seen tawraat ñu waxee loolu ko ni kon ne leer li ma leen di wax daal lenn la moom lillaahi yàlla doo nga moom wal maghribu comme niñ ko jàngee woon léegi mm-hmm. yàlla nag mm-hmm. yahdi mooy gindi mm-hmm. man yasaaw ku ko neex mu gindi ko ilaa siraatin jëmee ko ci aw yoon mustaqiim bay aji jub te comme nag nii moo neex yàlla lii la ñu sant ñun duñ ci am ma dem ci dikk dégg nga naka noonu ma gindee leen teg leen ci yoon wu baax jaal naakum def nañ leen yéen xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. ummatan ngeen di xeet mm-hmm. wasatan mm-hmm. bu diggu doomu ëppalu leen waaye yéesu leen da ngeen a nekk ci digg bi tabaarakallaahu oh. di doxal muy dox lu tax li takunu pour na ngeen nekk yéen xeet yi suhadaa di way seede ala naasi ci nit ñi akay noonu la ëllëg yomal qiyaama ah noonu lay mm-hmm. demee mm-hmm. xeetu Seydina Muhammad mm-hmm. ñooy seede xeetu yëpp waaw kay yeneen yi xam-xam yi seede nit ñi wali yi seede borom xam-xam yi waaw ba xam borom xam-xam yi moom daanañu sellal ndax noonu laag du noonu ñooñu tabarakallah mu door di mat kon nag ñoom ñoo nekk di coow rek waaye xamoon nañ lii mu leer naññ lu amul benn leer bu benn lënt lënt wa yakun nekk rasulu yenent bi aleyku ci yéen shahida muy aji seede na jotaloon na waaw ndax xeet yi ñeme nañoo weddi ne ñun daal yàlla musuñ laa weddi soo weddi na nga laaj fi ne xeetu yenent bi ñëw dikk ne yenent yi jotal nañu gaa yi ñu fetteerlu woon ñu ne yéen fekkee wu leen suñu jamono ba pare bu ñëw seede ah yéen di yéen a xumb nag dégg maam euh, namu koo xamul ci laa ko mos a gisee gum de namu koo xamul loolu nag bëriwul lu muy am mm-hmm. koo xamul pare di ko nam mm-hmm. gisuloo ko xamuloo ko dégguloo ko di ko nam mm-hmm. ah loolu yow mun dégg ñëw ne ah kay maa leen di seede ndax yàlla moo ma ko waxoon ci alquran wa ba jaal naa defunu wala mu jëluñu alqiblata penku bi nga jublu léegi allati mooy penku ba nga xam ne kunta nekkoon nga alayha daan ci jublu avant ngay gàddaay di dem madinatul munawara fii ñu la tourné léegi mm. delluwaat la ci kaaba bi mm. fa nga daan jublu avant nga jëm madinatul munawara mm. defuñu ko nag illa li naalama lu dul ñu feeñal suñu xam ñun yàlla seet ba xam ndax xam nga ñi la topp ku ci dëgërul day wàññeeku ndax naan yonent bi day làmbal ndax bu teyee mu ne nii bu ëllëgee mu ne nii te léegi kenn lay nekk ci dëgg waaye suñu borom nee na maa ko def nettu gaa yi ba xam ndax ñor nañu wala ño ñi lay ñu génn mm. ñu xool mm. man yettabi kan mooy dëgga mm. a rasula yeneen bi topp ko bu mm-hmm. man yeen ak xalib ak koo xam ne day wàññiku ala aqiba yi ci ay tësam tësam delluwaat ci kéefër gam nekkoon ndax bu yeneen bi defee nii difaat nii te mu ne yeneen bi nekkoon ci dëgg ndax bu nekkoon ci dëgg day bàyyi wala yaa ngi